ko àddina maam Less euh, Camara ni ma leen ko junjee woon ni ki tey jilee ca suba ca hôpital euh, principal bu ndakaaru ni ki ëllëg itam euh, daañ ko rek jébbal borom yi ca sëkk yu yoof waaye itam levée di corps bi daañ ko amal ni ëllëg incha allah bu rek fukki waxtu jotee maanaam bu 10 heures ci suba jotee fa nga xam ne moom moo di ca hôpital principal moom maam les Camara doonoon kàngam ci li nga xam ne nag moom moo di tasum xibaar waxoon naa leen ne moom Souleymane Niang directeur de l'information bu groupe groupe Futur Média la ñuy bokkal li nga xam ne moom moo di euh, jotaay wi ngir daal di wax euh, ci jëmm jile euh, Souleymane maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax Cheikh. Mhm. di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. Mhm. gis nga tiis wi nga xam ne moom moo dal suñu kaw rawatina askan wu Sénégal di kàngam wi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo di professeur Mame Less Camara. tiis bu mag. Mhm. ci Sénégal bi yëpp. ndax maam les taxawaayam. taxawaayu Sénégal la woon ci biir réew mi waaye tamit ci bitim réew parce que euh, bëriwul ñoo xam ne dañoo am lu ñu tekki ci profession bi biir Sénégal ak ci Afrique francophone ba de la Afrique francophone euh, bokk ci benn génération bi te xamoo wala jëflante ak euh, Mame Less Camara ci respect naw ko Euh, wekk ko ndax euh, taxawaayam ci ci ci ci profession bi. Mhm. waaye euh, ki njëkk ñàkk mooy njabootam. donc dañ koy dañuy jaale njabootam. Mhm. soxnaam ak ay njabootam ak ay mbokkam ñoom ñoo njëkk ñàkk. Mhm. waaye ñàkk bi dañ ko bokk ak suñu profession. muy génération ay génération journalistes yoo xam ne liggéey nañu ak Mame Less Euh, muy ca RTS muy ca Walfajri Océan FM euh, Walf euh, au-delà Envie FM ba BBC bi nga xam ne nekkoon na fi seen correspondant ak yeneen publication yoo xam ne da doon liggéey ak ñoom ci turam wala ci ay pseudonyme bi ci gën ràññeeku nag di Abdou Sow am na génération sénégalais ñuy ay intellectuels di ay politique di ay journalistes et cetera boo ne Abdou Sow rek bokk na si ñi nga xam ne seen taxawaay ci euh, gëstu seen taxawaay ci taxaw seetlu li ñu tuddee tey chronique li ñu tuddee tey analyse ak yi ni euh, Mamles Camara ci turam boobu di Abdou Sow euh, bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñoo fësal loolu mu doon nit koo xam ne bu bindee rek ñëpp xam ne lii résultat réflexion bu xóot la lii résultat euh, application ay règles précises règles professionnelles et cetera donc euh, gannaaw njabootam gannaaw profession bi Sénégal journalisme francophone journalisme Afrique moom moo ñàkk tey euh, Mame Less Camara amaan na dinañ gën a xuus tuuti euh, bu boobaa dinañ xam la moo doonoon taxawaayam fii ak ñun ñi nga xam ne ñooy GFM. Mhm. li ñu ñàkk. Mhm. te ma fas yéene euh, porter li nga xam ne mooy témoignage. Mhm. gannaaw liñ ci nar a dégg. Euh, ci jamono yi passé waaye témoignage yu tey euh, président conseil d'administration. directeur général ak l'ensemble du personnel du groupe chef. maa ngi doon wax li ko lëkkalee ak groupe Futur Média moom maam Less Camara xaatim na ngeen yër wax na itam ngeen dégg ci baatam ba woon ginnaaw itam waxoon naa leen ne démb démb rek contrat wi nga xam ne amoon na ko ak groupe Futur Média ba tey euh, mi ngi euh, wëy ginnaaw itam ñetti at ci ren yoo xamante ni nag xaatim na lu ni mel ba mu koy def itam ci jotaay woo xamante ni àndoon na ci ak directeur général bu groupe Futur itam président bu conseil d'administration ak ay ñooñam ginnaaw itam yenn ci ay kàddu yoo xamante ni moom Mame Less Camara rusaloon na ko ginnaaw bi muy xaatimee ba noppi.